man man sëñ Basiou bu jërë ngeen jëf léegi nag ñu déglu sëriñ kàddu gi dañ koy jël jox sëriñ Moustapha li woote woon ku doon dox nga taxaw ku taxaw nga toog te ñu déglu sëriñ Moustapha kon di yëg ubbil ubbil rajo yu baax a baax ñu déglu sëriñ bi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 ñu ngi leen di baalu ak tey baal ñëpp ziar Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général Murid suñu borom yàggal ko fi te wér mboolem jullit wax ji nag xam naa bi njëkk mooy soññi mbokki taalibe yi bu mooy bi njëkk ci jàmmoo gi yàlla kanu jaamu yàlla te bàyyi xel bu baax a baax a baax a fii du dëkk bien yeeg matériel yeeg solo ba jekk du dara ana bàyyi xel loolu danoo nekk ci jamono yi politique kenn ku nekk am lu mu soxla waaye bu leen fàtte réew mi moom suñu réewa buñ ko yàqee ñoo ko moom buñ ko defaree ñoo ko moom waaw waaye nanu jiital d'abord ci jaamu yàlla ndax fii kenn dëkku fi te fàttali ko bu baax suñu borom boobu mooy bi njëkk beneen bi ci desit nag kàddu cant la kàddu cant euh, ma koddu Thiam mi ngi ne ma koddu moo bindoon texte bi nga xamante ni moom la xale yi noonu wax sànq ñu koy sant bu baax di la encouragé di la gërëm presse bépp a ngi toog di xaar lan lan war a mën a tiitrer dès demain parce que fu ñu déggee ñu ne sëñ Moustapha Amar borom Thiès mooy woote rek ñoom ñëpp dañuy ñëw xaar ma wax lu tijji ban tiitare ko non sérieux ku ne xam na ni l'homme des médias moom moom lan koy man na koy dàkkantali bi nu commencé ba léegi xay na am na loo leen bàyyiwul xel waaye direct la fii ba de l'autre côté de l'océan ku nekk nga koy suivre prestige a ngi nii waaye dafa am deux cent vingt et un ku ne wax Kara Seck le matin fi ñëw ànd ak Midactu Ndiarndé TV ku ne gis na ko bàyyi ko ca Ndiarndé ànd ak garde de sécurité Serigne Pathé Dior Amar mii di PDG bi <laughs> sama xarit Thiès Info moom yàgg naa couvrir bis bi Thiès Info yàgg naa couvrir bis bi soxna Kadia moo nga dale sol beneen yu rafet yi de Sen 24 nag moom ñëw defar plateau bu yànji bële te ku ne war faa jaar plateau de ngeen di gis ñëpp moo koy defal waaye dafa am ñu ni wax Sénégal ku ne xam na ni ma demee ñoom ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi di sant bu baax que ñoom ñii ñu jar a xel la ñu jar a ñaanal la ndax say wax dañ koy jàllale sa li ngay def ñu jàllale ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm as bii de yaakaar naa fii ci Ngent du ni guléet de waaye bu mel nii raar na de non de nu mel c'est magnifique c'est magnifique te yombul am dégg nga ne ree na bu mel nii du ma ni mosu fee am mais yombul loolu nag dara maa ngi koy ñoom la. waaw ko defee. ku ne xam na ni mbokk askan dara man ko yaa bu ma jëlee gis bi di ci rendre hommage Serigne Amar Maane Amar mu jur sama waajuru jigéen Serigne Ahmadou Mat ak Serigne Kana benn la famille bi benn waaye dafa am ñoo xamante ni certes faaw ma leen remercier leen sant leen may ki fi njëkk a woote une journée culturelle Darmanko woote hmm? fête journée bu ñu wax merci dafa ko fële ca Touba di ci jox ay cadeau di remercier nit ñi daaw ñu noonu am ñoo xam dañ leen leen remercier jox leen ay cadeau waaye ren ñu am ci kun ci tàmm muy Serigne Thiat Amar moom Serigne Maam Goumba Amar ba ma ko tàmbalee ba léegi day ànd ak man ci bis bi lu ma woote mi ngi fi xool ko mi ngi ca kaw war a ñibbi ba Mbàkke bu ma doon dem ba fajare day toog c'est normal parce que je suis son père tam déggal ma rek nii ma koy sant bu baax di ko gërëm di ko encourager hmm? war koo jox foofu cadeau ci journée merci bi may woote fële ca Touba waaye am tàmm ci soxna suñuy wax Dior Amar madame Sadi buy ñëw ci journée bi day tëj këram chaque année ba nii may wax ak yow xale bu ndaw la fa bàyyi bu ñu toog ba fajare day toog waaye loolu lépp rek ci ndigalu kilifaam la kon moom danañ ko jox cadeau foofu ci journée merci ba bientôt incha allah kon ñu ngi leen di sant foofu bi leen gën mënuñu jël ay kàddu yu cant parce que euh, ñii ma nga ko rendre hommage tey ñu ñëw teew maître Amar Malé moo yore sama chargé de communication waaw waaye nag léeg-léeg mu ne ma tu es le maître de sa de ta yaakaar naa saa la wala taa tu es le maître de sa communication léeg-léeg moom mu wax ma ko waaw léeg-léeg ma jékki-jékki génn fële mu ne lu tax tàggoo ma <laughs> moo yor sama communication il est là de l' côté hmm? wax dëgg yàlla njaboot gi moom ma seen fay sëriñ Ahmadou Sougou moom sëñ Ahmad Tafsir Sougou ànd ak sëriñ Bamba Sougou bokk ci njabootu sëriñ Jéeri muy sama doom di nit ku baax doon na mel ni luy xaw a déconné sax nan damay dem waaye dafa toog ñemewu ko mi ngi ni muuru waaw kon kooku dama koy sant di ko gërëm sëñ caat yow ak ñi nga àndal ñëpp muy sëriñ Abibu yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen baalu àq di leen baal waaye nag sëñ nga wax waxi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xaalimal Mustafa fii la nekk ci marché bi yor fi place am yëngu ci ay téléphone soxlaalul nit dara jàmbaar di góorgóorlu ba ma toogee ba benn moment foofu lay doxantoo ci moom mi ngi nii kon wax dëgg yàlla dama koy sant bu baax a baax a baax njabootug Amar Maane nag ñoom ñooy samay nijaay ñooy sama yaay mais ñooy sama mag ñooy sama mag ñooñu sama yaay man sama yaay mooy sama mag yoon wi dama fi deseetul baay xam ngeen da ngeen koy faral ma di ko dégg lu bari yoon wi am naa fi ay mag ak ay nijaay yi toog nijaay nag mooy lépp ngent gi ñuy defee bis bi ku ni wax am di géy jëwriñ moo fi indi lii tey moo ni nan ko defee fii waaye ku ne xam na ni man ifsaar rek laa daan def 15 heures 17 presque lépp daal di pare ba ma ko indee fii tey kon ginnaaw yàlla ci moom am di njël sëriñ am liggéey male sonn ci loolu ci bis bi mais nag c'est normal parce que koo xamante ne bañ na bu foo romb sax dara man lay wooyee foo mën a romb dara man lay wooyee ak suñ tawla pen suñu Abdou Ndiaye jëwriñ bëgg nañ leen loolu ci yéen maanaam CDD CDD lan def te CDD lu ñu koy defal màggal gàmmu yooyu lañ koy may ñoo accordeel ma ko wóor na ku tedd ki ku ma ignoré ignoré ku laa biir koo xam ne xool bi Serigne Touba koo defar

sama xol tooy rek bu ma wootee lu mel nii fii man je suis né ici à Thiès fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa defee lépp ban may dàkkantele borom Thiès ah Seydina ñëw nga parce que macha allah maa ngi sant di leen gërëm soxna Nabou la fille de Siré soxna kon kanu kuna mbóoj bokk ci njabootu Mame El Hadji Malick ñu ngi nii macha allah seen sañse yi am na solo te sa kanam nag wax dëgg yàlla ku ne dégg na ko sama digganteeg soxna si ñu ngi ne toog macha allah tey kon maa ngi leen di sant ay kàddu cant rek lan amoon ci loo xamante danga koy wax boo leen gisee li tax ma wax ne kuréel yi dañuy barkeelu ñoo ma mën a yóbbu fenn fi moo tax ma woo suñu xaadim Fall ni ko ñëwal nga barkeelu sëñ Paate Amar moom sëñ Misbaa maa ngi lay sant di la gërëm ndax tey bu àll ñëwee ci bis bii ginnaaw yàlla yow la yaa ma conseillé ci yooyu yëpp te yaakaar naa àll yëngal na fii hmm? ginnaaw yàlla yow la maa ngi sant bu baax jërëjëf tabarkalla am nañ mbégte dal ci kàddu yi ah waaw man ana première dame gisuma ko soxna Fatima bintu ya Rasulullah soxna Fatima Sadi Sadi Alimata bintu Sadi ñoo nàmpal yonent bi nga nga na leen soxna Fatima Sali hmm? ànd ak première dame bu sëñ ak liggéey male ak njabootam ak waa këram ak ñoom ñëpp soxna yëpp am di délégation bi yaatu na lool ñu ngi sant ñëpp ay kàddu cant la woon euh, sëriñ Ousmane Mbacké moom Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni fi la yenn yàgg na fi lool mën na noo wax ni liñ bëggoon a wax lépp daanaka xajul fii waaye comme danoo def base bu mel nii créé lu yaatu lu ñuy wax pëjoom ñu ci bari danañ ci jaar waaye dañuy tënk rek loolu moo nekkoon kàddu yi cant kàddu yi cant fa may daanalee nag mooy samay daanale mooy maa ngi juddoo Thiès ginnaaw raay dama leen di nett dama leen di fàttaliku lu lu lu yéeme toolu maam ñaay te ginnaaw raay hmm? amoon na Dakar gu nekkoon amoon na Dakar gu fa nekkoon ay jamono may dox ba diggu ñàlloon ma am lu ma fa gis mu taxaw wax man ni ma baa xam nga ni ëllëg fii ci réew mii ku fi doon doon dara faw nga am loo fi représenté wallaahi ni ma ëllëg bum la ñor na la ko tedd ki ñor ma geesu gisaatuma ko ca Dakar ga ca toolu maam ñaay foofu laa dëkkoon sama gin ak kër maam dafa am ñett yoo xamante ni dama ko dul kafe dama ko dul caaxaane ñett yoo xam ni mën naa cee assumer ni lii lu wér la mooy lan man du fen du fen du sàcc benn bi nag moom mu dal ma léeg-léeg mu dal ma accidentellement mooy jox loxo jigéen bëgguma ko ba ma ko defee sax wax dëgg yàlla damay am lu ma naqari ñett yi daal mën naa ko assumer ñaari moom mën naa door ci kaamel ni duma ma du ko def man du ma sàcc du fen du jox loxo jigéen waaye léeg-léeg mu mel ni lu ma xaw mooy ma def ko te du ma ko tey moo tax li ma leen di wax nii lu leer naññ naññ naññ naññ la fii ci réew mii képp koo xamante ni soxla nga dara ak noo ko mën a soxlaa dafa am lu ma ciy représenté wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf sëriñ bi ne sant na ñëpp góor jigéen mag ak ndaw sant na ñëpp Ablaye Dieng jërëjëf yow tam yaa ngi jàllale lépp à travers le monde ñu ngi déglu affaire yi. sëñ Amadou Sougou jërëjëf. Afe Anta Mbacke Anta Ndiol Anta. Sidi Borom Gaawaan sa maam li ko sëñ Bamba waxu kenn. maam Cheikh Anta jaaraama maam Cheikh Anta yaa gëm Bamba yaa taar yaa tabay te gëm yeneen bi. sa maam moo fi ne woon Konaakiri jógoon na fekk Serigne Touba ne leen ma doon maam Anta Ndiaye sa maam moo indi sa moo di soxna jaare ci kër gi maam Anta Ndiaye wàcc na am na fi yaaram am ilimaan gàlliw leen ci maaram yéen ay jàmbaar ngeen ay góor ngeen nit ñu baax ngeen jërëjëf parce que kenn du si sëriñ barke sëriñ Tuubaa La ilaha illallah